Euh, di remercier d'abord euh, équipe euh, technique bi fi ministre bi envoyé tey surtout aussi déglu nañ seen waxtaan ñu koy rafetlu bu baax a baax ñun ñu am rek peut-être quelques doléances yoo xamante ne tey côté jigéen ñi muy côté jeunes yi ku ne xëy na déglu ngeen ko côté jeunes yi comme ni ngeen ko gisee fii nii jeune bi jeune agricole la jeune élevage la. Euh, am na ñu suuf si am na ñu naaj bi mais la mise en valeur suuf boobu noonu xëy na moom moo fi nekk tey problème parce que les moyens ne sont pas réunis amuñu moyens yoo xamante ne mun na tax tey ñu exploiter tey suñu suñuy suuf te zone yi aussi nappi euh, bokkuñu am na zone yoo xamante ne bu ñu gasee teen quelques ñu am ndox am fu ñu liggéey am na zone yoo xamante ne tant que amuñu forage amuñu ñu liggéeyee côté agriculture bi. am na zone yoo xamante ne même bu ñu amee teen yooyu noonu amuñu les moyens encore pour xëy na barboler te yaa élevage bi ni ngeen ko gis def day day tasaa day tas ci biir dëkk bi te yow boo defee loolu noonu da ngay dem ba tel toll benn moment boo xamante ne xëy na am nga yaakaar mu yàquwaat ci say loxo eh, bu dee nag côté groupement yi xëy na am na am na groupement yu bëri ñu fi nekk ñoo ne dañuy jéem si seen doole ci seen pexe eh, di dajale bu di jéem peut-être tey di def ay barbelé lijjante suuf bu am ko eh, mais lan mooy nekk problème bi tey xëy na ñu amoon euh, au minimum benn forage boo xamante ne mun na alimenter tey espace boobu nga xamante ne ñoom dañ ko war a aménager bu ñu amoon tey ay équipement yoo xamante ne mot yu mot euh, comme yeneen partenaires yi jóge extérieur di fi ñëw tey di exploiter suñu tool yi suñu suuf si di def ay système goutte à goutte di ci récolter loo xamante ne ñun ñu ci teg suñu bët mais am ñu les moyens xëy na pour def noonu noonu tey zone bii nii y a des yoo xamante ne ils sont expérimentés côté pour installation ay système goutte à boobu noonu ñeneen ñi côté maraîchage bi mais le problème en est que amuñu moyens yi pour xëy na def ko dañuy préférer bàyyi fi seen zone dem liggéey leneen loo xamante ne sax du seen domaine parce que mooy ñoom ñoo ñoom ñoo leen ko permettre wul. mot na fukki weer ak ñaar nu tëj kees ba ñu ne kees bi kat nañu ciy ñaan yàlla ndax ñu looy ñaan yàlla da la ciy dimbale li ñu ñaan yàlla nag yal na ñuy raam di raam ba ku ñu ëpp doole tuuti bu ñëwee dinañu dimbale ñu mën a jënd ay xar. ñun ñëpp ñu nga xam ne ñeen fukki nit lañu ñu seet benn kër fi ñuy booloo borom kër ga nit nag moo ne dinaa yeew fii to amagoo dara waaye bu ñu amee xaalis fi ñuy booloo borom kër googu la ñu naan jigéen mënut a yor waaye ñun suñu xaalis go du ko gis ñun ñoo yore suñu bopp mooy Ndella Marone moo jiite ki war a ñëw nag ñëwut man Seynabou Ndour maa maako ñëwal tey si ñuy yëngatu ñun dañuy booloo rek di natt natt bi di ko leble nii ndax amaguñu xaalis ñu yëngaguñu fenn daal amaguñu fenn waaye jël nañu ba jël suñu récépissé dem na yëngaguñu fenn daal. ndax jàpp ngeen ci teewaayu ndawal ministre bi mën naa saafaraw. ñaa moom la ñuy ñaal yàlla te gis nañ ko bu baax a baax ñaan nañ ko yàlla te moom li ñu gis fii moom doy nañu gis nañ ko moom dina dina saafaru ndax yàlla moom soxorut te kii ñëw tamit soxorut. te du yàlla dina ko jàppale yëpp dina saafaaru si kattanu yàlla. yéen ak suñu jafe-jafe daal mooy ñu ngi wax fii yëpp ay affaire nag ay liggéey ko xaas bu ñu am pour mun cee liggéey daal moom mooy suñu jafe-jafe que jigéen fu mu nekk daa war a am xaas bu mu mun a liggéeyee pour ak waa dëkk bi yëpp dëkk yëpp dañ ko war a jàpp parce que bu ñëpp ñëppay noppalu fii fi teew ñëpp daal bu ñu amee lu ñuy ñëpp dañuy teew dañuy sant suñu borom parce que ku nekk bu jogee di nga am li nga ci li nga jàpp pour mun a liggéey suñu soxla daal mooy am nañu courant waaye am ñu machine parce que ñu ngi ne dañuy wal bu déeg bëccëg di boj bu déeg bëccëg amuñu machine bojukaay ñu machine walukaay amuñu ay ay cin yu mot daal ak ay bool yëpp amuñu ko moom ci loolu moom seen tool yi ñàggaguñ ko moom ñàgguñu ko de wax dëgg yàlla moom ñàgg waaw ku ñu jàppale bu ñu am tool bu ñu liggéey moom bu ñu ko am itam day gën a baax parce que jigéen moom bu tool nekkee si dëkkam daal di liggéey dañuy fii la ñuy jógee fa euh, fii ni ko Kër foofu la ñuy xëy ñun jigéen di fa liggéey kon bu ñu ko amoon foofu lañ fii ñëw ñuy ñu dem Kër Madiang dafa liggéeyee li ñuy soxla mooy ay ci nag suñu machine yi dox ñu ci mën a liggéey am tool bu ñuy liggéey guddeeg bëccëg di xëy di gont loolu moom bëggoon nañ ko suñu machine moom mu ngi nii waa amuñu amul courant amul dara moom liñ ci mën a oh, machine baa ngi nii waaye ba léegi wolagut bu ñu soxla nag day wol tool bi nekk fi bu ñu xëy di ci liggéey di jàppal suñu njaboot yi ñi jàng di ñëw buñ ko amee moom day day baax am baas bu ñuy luyee encore waaw loolu moom soxla nañ ko bu baax a baax bu ñu soxla moom dañ koy am. jëf tey ñu ak biram donc démb ñu ngi woon euh, fële euh, Mbodiène bon am na beneen équipe aussi bu nekk euh, Fadial ak Ndianda donc je crois que tey leen boucler suñu séance technique yi nga xam ne moom lay précéder arrivé ministre bi nga xam ne moo war a am suba alors boo xoolee depuis démb ba léegi déglu leen gën a def déglu loolu rencontré groupement yu bëri femmes yu groupement de femmes groupement de jeunes ak de moins jeunes même donc ñoo xam ne euh, wax neen exactement ci lu ñuy liggéey wax neen seen problème wax neen euh, également seen i mbëbét alors donc yooyu yëpp recensé nañ ko bind nañ ko man ak euh, sama collègue yi alors mais man fi may intervenir rek mooy ci mbiru financement bi parce que gis nañ ne quand même y' a beaucoup beaucoup initiative yoo xam ne nit ñaa ngi koy jël nit ñi daal tooguñu daal maanaam ñi ngi jéem alors maintenant nit ki nag buy jéem dañ koy dañ koy non dañ koy jaajëfal mais aussi da nga koy dimbali. alors ñun suñu ministère bi xam nga ne ci liggéeyam bi gën a am solo ndimbal ci la bokk maanaam accompagnement surtout su ko defee initiative économique mun a taxaw mun a dëgër mun a jariñ ñu nga xam ne ñoo ci yëngu. ñun loi bi ñu bëgg a teg loi d'orientation bi dafa ne képp ku bëgg a nekk association bu bëgg a nekk euh, acteur de l'économie sociale et solidaire boo amee sa statut association ba pare da ngay sol valeur ak principe économie sociale et solidaire nga ne kat lii nga xamante ne mooy valeur yi si lay dox ba pare donc bu boobaa dañ lay yaatal. sa activité économique doo ko yemati rek ci à but non lucratif mais da nga koy def une activité vraiment entreprenante nga xam ne di nga mën a euh, liggéey liggéey bu am solo si sa wàllu activité bi mais li nga xamante ne mooy exigence bi lépp loo ci loo ci récolté comme euh, résultat comme bénéfice dafa am noo koy delloowaatee si société bi dafa am noo koy dugalaatee ci population bi donc moo tax ñu naa association entreprenante et responsable entreprenante il faut être une entreprise mener des activités économiques d'envergure responsable mu delluwaat nga am sa responsabilité boo xamante ne kat tu es pour la société nga jàppale société bi li ngay liggéey mu delluwaat si société bi société bi gis seen njëriñ beneen catégorie d'acteurs bi mu nekk les entreprises sociale entreprise sociale nag dafa nekk catégorie bu bees mun nañ ne loolu mooy bees bi à part li ma wax ci lu bees ci association bi loolu moom dafa nekk lu bees lu amul woon léegi entreprise sociale yooyu dafay nekk société yi euh, toute entreprise individuelle ou une entreprise commerciale moo xamante ne c'est défini dans le cadre de l'OHADA ah wala un entrepreneur koo xamante ne buñ koy immatriculer ci activité am lañ koy immatriculer ñu ne leen yéen ñooñu ñëpp mun ngeen nekk des entreprises sociales ni ñu tegee ay sas association bi ñoom tamit ñu teg leen ay sas yoo xamante ne dañuy war a tënku ci principe et valeur de l'économie sociale et solidaire donc léegi nag ñun pour ñu mën a recenser ñooñu ñëpp dañu mettre en place un outil outil bi mooy plateforme seen label ESS léegi place ci la bokk léegi euh, outil boobu daf ñuy permettre fépp fu ñu dem ci rencontre yu mel nii ñuy recenser acteurs yi fa nekk yëpp dugal leen suñu base de données seen préoccupation yëpp noté nañ ko intégré nañ ko les besoins d'encadrement d'accompagnement de formalisation yooyu yëpp dañ koy après sérieux te sur cette base la plateforme bi dafay nekk un outil d'accompagnement et d'encadrement pour le ministère daf ñuy permettre aussi ëllëg bu ñu waree génnee suñuy statistiques ñu mën a génnee statistiques yu leer parce que tamit loi bi dafa jox engagement bu dafa am benn dispositif bu am solo bu mu mettre en place ñu ne dañu bëgg économie sociale et solidaire ñu xayma contribution ci économie Sénégal donc loolu mu nekk liggéey bu rëy boo xam ne war nañ ci liggéey ak euh, agence nationale des statistiques donc loolu bu ñu ko bëggee am donc foog ñu xam kan mooy acteur de économie sociale et solidaire si lan lay yëngu ba nga xam ne dinañ mën a mesurer contribution am boobu donc outil seen label ESS euh, si la bokk loolu la ñuy jëriñ te ñu ngi ci commencé fii phase expérimentale la plus ñuy dem dañu koy gën a améliorer xool yi ci gàllankoor encore précision yi ñu ci war a apporter amélioration yi ñu ci war a apporter ñu apporter ko ci. gannaaw bi ngeen dajee naam ñu ci bëri bokk nañ ci ay kuréel. mais bi ñu leen dégloo ñoom kenn ku ne da ngay xool loo kii rek nga so loo soob nga def ko yéen ngeen bëgg a créer benn chaine de valeur. ngir gën a dëgëral koom-koom mi ba kenn ku ne mën cee gis bopp ban processus ngeen di jaar nga mën a réaliser loolu. waaw li schéma modèle euh, entrepreneurial bi nga xamante ne moom la ministère bi bëgg a teg en place euh, du nekk ci ay individualité moo tax boo gisee suñu tournée yi buñ koy def dañuy regrouper ay zone bu ñuy dugg ci commune wala bu ñuy dugg ci gox dañ leen di regrouper en en zone selon spécificité zone bi suñu mbébét mooy zone bi constitué wu autour d'un projet structurant dafay nekk loo xamante ne dañuy xool potentialité yi c'est que groupement bu nekk yaa nga fay di liggéey mais groupement yooyu ëllëg ku nekk di liggéey di demal sa bopp ñu xool naka lañ leen di lëkkalee naka leen di lëkkalee ba nga xamante ne intervention bi day nekk circulaire mais aussi dafay suivre chaîne de valeur bi te bu boobaa loolu dafay laaj une structuration ah une structuration des organisations autour d'un projet commun boo xamante ne tous les principes de chaîne de valeur dinañ ko ci mën a et les principes de l'ESS dinañ ko ci mën a développer donc vraiment ñun perception boobu la ministère bi am sous l'orientation de madame le ministre pour ñu promouvoir l'économie sociale et solidaire